excusez monsieur, le Président de la République, distinguées autorités, à vos rangs, titres am naa mbégte tey teew fii ma am yaakaar ne ñu bëri tey li leen yitteel mooy ñu parax-paraxi jàpp date pour dem élection mu mel ni nag dafa am acteur politique yu bari yu taxaw Sénégal mais dañu ignorer une réalité boo xamante ni foofu la Sénégal tollu jamono yi muy la géostratégie du Sénégal ça fait trois ans ñun bu ñu génnee si médias yi di wax dañuy alerte ne nit ñi nañu tey parce que du ñun rek nañoo fi nekk te tey am na ñu dem ba dugg ci suñu biir rax ñu te ci diine lañ ko jaaree 1962 la ñu commencé ràbb loolu parce que bi ñu ñëwee Sénégal ba dugg ci fii dañ xool ne ñun du ñu réewu Afrique yi ñu wër yépp diine am na fi doole ndax boo yeewoo moom ngay dégg bu ngoonee moom ngay dégg ñu ne ñii nañ leen jaar ci diine ba tey man bi ma génnee armée en 2017 état bu Sénégal dafa ma encerclé pendant cinq ans kenn déggul ma jooy kenn déggul ma satak parce que loolu mooy yoon defuñu ko contre man mais dañ ko def pour la sécurité du Sénégal et des Sénégalais mais bi mu demee ba mu leer leen ne kenn ku lëndëm nekkul sama ginnaaw kenn poussé wu ma ma def li ma def dañ ma woo ba ma ñëw ñu ne ma delloo nañ la say àq ak say yelleef donc tey li am solo mooy réew mi dafa lëcc te li tax mu lëj ay sénégale ñooy noonu Sénégal ba pare di wëri kan mooy seen noonu foofu la réew mi toll njiitu réew ñu bëri dañ foog ne sa personne physique moo am solo mais man damay def ay cours ci état ak politique damay wax ñu bëri ma ne leen njiitu réew jëmm doomu aadama la yor mais du doomu aadama boo xoolee jëmmam nga dem ci ginnaawam dangay gis bànqaas yu bari yoo xamante ne moom mën na décider lu bari loo xam ne neexu la mais boo ko xoolee ba kam lu tax mu décidé ko da ngay d'accord ak moom quand on parle de magistrat ñu bëri xamuñu ne que la personne du président de la république le président de la république c'est un officier de l'armée ñu bëri xamuñu ko les magistrats du conseil constitutionnel sont des officiers ñooñu seen bind dafa am lu bëri lu muy wane parce que day jël pàcc yi nga xamante ni tey suñu kaaraange réew daf ko soxla donc tey pour man li am solo fii ak décembre bu dee dañuy wax au la de nos aspirations et de nos intérêts mënuñu fi organiser élection yoo xamante ne Sénégal day mucc man nag li may wax man candidat laa woon ci élection yi ñu at ñu ñu recalé ma am naa ay intérêt mais c'est pas le plus important ñun dañoo waat devant un drapeau te ba ma summee sama tenue dugg ci langue politique bi drapeau boobu laay continuer di topp kon tey fi réew mi toll nañu dal ñu woo nit ñi ci jàmm waxtaan ñetti angle kese la yow da ngay nangu ne dangay ñëw waxtaan parce que lëj-lëj am na te dëgg-dëgg lëj-lëj am na ginnaaw ba nga nangoo ne lëj-lëj am na nga nangu ne am na keneen ku wute ak yow gis-gis waaye ñetteel bi moo gën a am solo man am naa sama gis-gis mais ma ñeme ñëw teg ko ci pénc bi ñëpp teg seen gis-gis ñu waxtaan ci xel mu sell donc yàlla na yàlla def jàmm Sénégal nañu bàyyi profito ne dañuy jàpp date par force c'est pas l'urgence nañu xool anam yi nga xamante ni buñ ci jaare ñépp dinañ nekk ci jàmm réew mi dal ñu am président bi ñu war a am capitaine. Merci beaucoup, capitaine. Je voudrais inviter le docteur Abdoulaye Lam pour prendre la parole au nom des associations Ibadou Rahman. Docteur Lam,